L vingt neuf L trente nga xam ne moo tere ñu bëri bokk ci élection yi mais réforme bi bokk na ci aussi ñu xoolaat parrainage bi ñun yàlla defoon nañu bokkoon ci commission yi nga xam ne ñoo doon xool parenage bi comme observateur ci conseil constitutionnel mais jàpp nañ ne bu amuloon parrainage bu baax parce que dinañ yegg ci yenn nombre de candidats donc oui pour le parrainage mais dañu war a améliorer système mu parrainage bari na ñoo xamante ne nii tey parrainage xañ na leen ñu bokk ci élection te pourtant amoon nañu légitimité bi bi ñu defee parrainage ba ñu observé ku mel ni Malick Gakou ku mel ni Bougane Gueye Dany bi ñu càmbaree seen dossier li leen tere bokk bu ñàkk am légitimité par exemple ñàkk am popularité mais ay doublon la ak ay erreur matérielle léegi corrigé nañ problème mu erreur yi mu def problème mu doublon yi mooy principal problème mu parrainage réglé nañ problème tirage au sort par tirage au sort kan mooy jëkk déposé kan moo dul jëkk moo tax ñun ñu proposé que parrainage bi ñu def ko parenage optionnel bañ ko def parrainage exclusivement citoyen parce que parrainage citoyen mooy indi surtout doublon yi et parrainage optionnel mooy ñi nga xam nañ am nañu lu mat cinquante députés ñu ne leen ku am cinquante députés say député parrainé la boobaa benn boo ko yaakaar wooy koy dem élection jarul uti parrainage da yeewi day dem taxawu day dem bu fekkee am na nombre de députés ñu leen mën a pare parrainer lu jar ñu uti parrainage citoyen beneen bi mooy ñi nga xam ne am nañu conseils municipaux ñu ne nangami conseils municipaux ku ko am mën nga parrainer candidat day tax bu boobaa ruer vers la collecte de la du wàññeeku dina tax bu ñuy def contrôle parrainage bi ñi nga xam ne amuñu député amuñu conseils municipaux ñoom ñooy dem ci terrain bi uti parrainage dina wàññi risque replon yi beneen bi ñëpp xam nañ ne Sénégal boo imposé que ne ku nekk benn candidat lay parrainé du tere keneen parrainé ñaar ñett ñeent mun nañ ko limité aussi ne nit ku nekk ñaari parrain nga mun a am ñaar ñaar nit nga mun a pare parrainé yooyu yëpp ay réflexion la ñun bind nañ ci lu toj ni livre yoo xam ne nañ ko versé ci biir eh bien dialogue bi beneen bi monsieur le président mooy Sénégal dañoo war a def benn pas bu euh, bu majeur ci wàllum élection surtout fichier électoral pour construire ay autoroute à péage comme niñ ko defee macha allah construire ay euh, infrastructure comme niñ ko toll suñu dëkk war nañ mën a am fichier électoral boo xam ne ay dem inscrire réinscrire xeew yi ba nga xam ni ku toll ci am atum voté automatiquement mu dugg ci fichier électoral bi nga xam ne inscription réinscription yooyu yëpp dinañu ko wàcceel